mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan à travers euh, l'ensemble des plateformes de sunu label TV amoon mbégte tey ñëwoon ci matinal sunu matinal euh, waxtaanee politique waxtaanee la xew ci assemblée nationale en tout cas bég nañu lool ci li ñu fi fekk bég nañu itam ci accueil bi bég nañu ci décor bi bég nañu ci forme bi ak fond bi di wax euh, di encourager. ñëpp di féliciter toute l'équipe de sunu Label TV waaye itam di leen invité ngeen suivre seetaan abonné wu ci l'ensemble des plateformes de sunu Label TV ngeen suivre aussi sunu Label TV ci TNT TV d'Orange ak euh, ñi nga xam ni ñoo fi nekk équipe yu am solo yi di leen fournir de bons plats d'argumentation ci ay sujets yu am solo jërëjëf.